bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Seexul Xadim noo ngi fii ci daaray Lagan ci liggéey sëriñ Tuubaa sëriñ Seexum sëriñ Tuubaa Seex Saaliu Mbàkke di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ànd ak sunu wëllëre di sunu mbokkum taalibe di kenn ci nun mu di sëriñ Matar Jaañ mu Alaaji Mbay Jaañ Kawlax mu indi fi xiiwal ndox mu takk lool andi ko démb ci ngoon sarta oto ma fees xëyaat indiwaat bari lool moo tax daa bëgg liggéey bi li mbooloo bari bari bu fekkee ñëpp di naan ndox mun traité loolu nag sëñ fekk na fi sëñ bi siyaare nañ ko sëñ bi rafetlu na ko lool bëgg nañ ci lool léegi nag liggéey bi tubaarkàlla ñu ngi sori ñoo ngi ci ñun nag war nañoo sant bu baax tër bi yi nga xam ni suñ xal seen jëwriñ seen kilifa ak topp jëwriñ yi ak mbooloo mi fi nekk ndax ñoom kat ginnaaw ñoom ñoo ruuj ñoo faraasu ñoo ji ñoo bay moom àgg ñu ñëw dikk ci barkeelu si di ko góob kon jaajëf ñoom ñi nga xam ne liggéey bii ñuy liggéey tey jii muy tool góob saañu si ci lagan ñoom ñoo ko bayal ñoom kat kon nag ñoom di yàlla na sëriñ Tuubaa Seex Saaliw ak sëriñ Seex defe ne pajug ayu ci saari gi baatin ñoom ñëpp ndab yi leen taatan seen ndabi xol yi yàlla na ko sëriñ Tuubaa duy moom fees dell ci ak barkeel ci ay xiwal ci ay ngëneel léegi nag dañoo toll jamono boo xam ne bii léegi suñu dafa jot sëkk nañ fi dal daxa saa yi te yokk góorgóorlu gën a fas yéene góorgóorlu ndax àddina cate na yi fi jaxasoo na kenn xamat lu muy nuru kon nag comme fekk Sëriñ Tuubaa dees ko naan nangutum ni ko kàlliw tey ji moom bu dëgër lool farluwaat bu baax man de wala fi dañoo wax ne koo feeñ tàmbalee ci sëriñ bi yem sëriñ bi mooy sama itte mooy mooy sama xemimteef mooy sama bëgg mooy sama jublu sëriñ bi rek asalaamaaleykum waa mbokki Lagane ñëwoon doon barkeelu ci liggéeyu sëriñ Saliou bi nga xam ne xam naa ne ñëpp ko bokk mbooleem jullit mboolem murit mboolem waa kër Sëñ Tubaay mboolem waa kër Serigne Saliou Sëñ Cheikh xam naa ñëpp ko bokk maanaam àdduna bi waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax di ci sant. sëriñ Touba di sant sëriñ Saliou di sant sëñ Cheikh mii di sëñ Serigne ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tàndak ak liggéey bii mu ñuy liggéeyloo muy suñu njariñ képp di tey ak ëllëg ñu ngi ko ciy sant bu baax tey ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wér di sant suñ jëwriñ bi nga xam ne suñu jëwriñ la sëñ kan Kane xam ne mën nañu bàyyi. man ñu sëriñ man ñu lépp toujours mu ñuy soññ ci liggéey sëriñ Tuubaa bi nga xam ne lool su njëriñ la ñun ñëpp ñu bokkoo di ko liggéey ak sëñ Xalil Lo mi nga xam ne sëñ tubaab moo ñu booleeg moom ak Cheikh Saliou Mbacké ñu am ci sens loolu nag ñun waa Kaolack ndax wax dëgg yàlla li ñu ci bàyyi ci liggéey bi jëmale ko ci loxo Kaolack sant yàlla la ñu ngi ñaanal képp koo xam ne jël nga sa ñaq def ko ci suñu borom fulal la ko defal ko ay milliards ba nga gën a mën a liggéeyal sëñ Touba ñun ñi nga xam ne tamit ku ci joxe ku ci joxewul ak ki yéene ñëpp ñu ngi leen ciy fasaaleel ku si nekk li say aajo suñu borom ekkati ko lu say ajo suñu borom fajal la ko bu dee ku wéré di suñu borom wéral la yokk lay kàttan ba ëllëg lii ñu jot a def ni ngeen di ko gis ku ne man cee farlu ñu koy defal sëñ Touba dañ ànd ko wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne xamee nañ ñu liggéey bi ba kuñ ci wax acca ñuy dem ci kër sëñ ba rek ci nekk def sa ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm te ñaan sëñ Tuubaa mu yokkal lii nag li ci sëñ lii moom ñun dañoo tombe ak tawfeex sax ndax dañoo ñëw fekk fi sëñ bi sëñ Cheikh Saliou wax dëgg mu kontaan ci nee na gis na liggéey bi ba moo joxe ndigal sax ñu def ko fii mi ngi ci biir kon nag li ñu fi jëlee yal nañ ko sëñ Tuubaa boole ñun ñëpp ak ñu bokk liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ngi gën a ñaanalaat suñu sëriñ bi mu yàgg fi lool te wér sëñ Cheikh Sall yal na fi yàgg te wér bët bu ko suñu boroom muy wa waa wàllu kër diine yeeg jumaa yi muy defar ak ko suñu borom jox yal na ko wala woyofal lool ba mën a àggale sëriñ Touba bi yal na ko yàlla defal te defal ñu ko ñun taalibe yi ñu ay xewal yu yaatu yu mën a taxawoo ci liggéey bi ci barke sëriñ Touba ak wér waaw li ñu fi jëlee nag yàlla nañ ko bokk ñëpp mbokk taalibe yëpp suñu borom def leen ay ay milliardaire saxal ñu si taalibe nag mu ni ko waxee saxal ñu si taalibe te suñu borom nangul ñu ko sëñ bi nangul ñu ko jërë ngeen jëf. nee na mi ngi ñaan ci darajey kookee nga xam ne moom la ñuy xëyal di ko gontal yal na yàlla faj aaju yëpp te musañ ci ndog yëpp te lépp luy seenug bëgg ngeen àndaale ko ci tool yi yàlla na ko suñu borom saafara def faj ci barke Cheikhul Khadim nee na xolam sedd na guyu xelam dal na liggéey liggéey biit lam ca faral di wax rek waxtu wu ne woowu leen ne leen kaay leen liggéeyal ma kaay leenu ànd liggéeyal sañ tubaa rek lay wax ndax fas na yéene ak dundam du ci xëy menn xëy moo xam ne sëñ Tuubaa taxut ak dalamit du dal ci dara lu dut neex am xelam ci sëñ Tuubaa rek lay ne lu muy xëyal rek sëñ Tuubaa rek la cay wut ngërëmam kon nag saa yu gestoo gis leen ci ginnaawam day jàpp ne lam bëgg ci yéen dana ko mën a am ndax wóor na ko ne moom aajo du faju mukk te borom liggéeyalul sëñ tubaa te wóor na ko ne it ku liggéeyal sëñ tubaa yàlla faj say ajo te moom yitteem jëpp mooy yàlla faj seeni ajo rek